société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen may seen revue de presse dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo mboolem yéenekaay ñu xëyandoo ñu xëy fekk fa Barthélémy Dias doomu Samuel Dias bi maire bu Ndakaaru muy tontu njiitu réew mi di président Macky Sall yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu wolof Njaay nee tontu de forox Barthélémy Dias tontu na Macky Sall ni ki démb ginnaaw bi muy janoo ak génn keroog ba muy jël yooyu nga xam ne Macky wax na ko nag Barthélémy Dias dafa jàpp ne moom la Macky di gaaruwaale moo tax ni ki démb daan moom Bart daan nay wax ne Guy Marius Sagna mi nga xam ne jël naa ko ci mairie bu Ndakaaru ak capitaine Omar Touré ñooñu nag amul kenn koo xam ne mën na leen a ci mairie bi par force doon fi liggéey maanaam ci nii wala ci naa te Macky mënu ci man askanu Ndakaaru ñoo ma fal te nag wax ju bari ji ci boppam jamono ji mënuma ko ndax aw ma temps yéen a kaay gi di Le Quotidien moom Barthélémy Dias yox benn yoon ci kàddu yi nga xam ne Macky Sall yëkkati na ko Barthélémy Dias jàmmarloo na ak Macky Sall journal bi de la Tribune nee na doomu Sambol Dias bi déclaré na guerre ki nga xam ne mooy Macky Sall yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien moom Barthélémy Dias nee na dina génn lu toll ci benn milliard ngir nag financer nga xam ne ñooy ndaw ñi mission jamono ji maanaam mooy liggéey Ndakaaru moom Barthélémy Dias nee ak Macky Sall waxtaane jafe-jafe yi xam ne moom la capitalu Sénégal bii di Ndakaaru di làmbool yéen a kaay gi de laas nee na Barthélemy Dias ni ki démb doon janoog taskatu xabaar yi doon songu Macky Sall waaye nag da doon seral di tàngal Barth da doon seral di tàngal léeg-léeg Barth tàngal tàngal tàngal ba mu tàng jër waaye tamit Barth léeg-léeg daal di koy seddal ba mu sedd ci conférence de presse kaay gi di moom Barthélemy Dias nee na nag kaddu yii nga xamante ne yëkkati nañ ko wax ci lu jëm ci wàllum révocation maire loole nag ay kaddu la yoo xam ne ki ko yëkkati war na koo retiré su dee nag bëgg na ak dal am ci réew bi di enquête nee na en tout cas li am ba des la mbir mi pëccaxoona lool journal bii di Vox Populi ñi nga xam ne ay élus locaux lañu ci mairie bu Ndakaaru bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñoom Abdoulaye Diouf Sarr ak Bamba Fall niki démb tontu nañ Barthélémy Dias nee nañu nag Barthélémy Dias daal defati na maninam maninam mooy wax lu dul dëgg maanaam kàcc ak di songu Macky Sall ci anam boo xam ne jaarul yoon ñi nga xam ne ay élus locaux lañu bokk ci Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru démb nee nañu Barthélémy Dias mi nag dañu ko war a arrêté ci njombe giraawal yi nga xam ne moom la nekkee Assane Samb xëy jël xalimam nee na Macky Sall wax na ñaari kàddu yoo xam ne pëccëxoo andi na ko ci réew mi lu jëm ci wàllum révocation ay maire ak lu soxal wàllum réseaux sociaux yi ñaari mbir la yoo xam ne coow li bëri na ci loola Assane Sambo nee na kàddu yi Macky Sall yëkkati loole nag moom ni ko jàppee maanaam provocation la Macky di defa waaye nag révoqué ab maire ci jël na ñaari nit ñoo ne ay doomu réew mi am seen droit civil ak seen i droit civique ñu jël leen ñuy liggéey nga wax da nga leen di dàq <laughs> loole nag yomb na loola Assane Sambo njombe laak goo xamante ni maara day taale yéen kaay gi di réew mi quotidien ba tey ci xëlim ak Assane Sambo nee nag lii li muy firnde la mooy Macky si boppam moo munta wanaasu defet bi nga xam ne am na ko ci élection locale yi ñu génn ci capitalu Sénégal te nag li nga xam ne moo ko war mu bàyyi maire yi nekk ci opposition bi ngir nag ñu daal di liggéey journal bi di Vox Populi xëy du ñu xibaar naan ñu élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmale jamono ji maanaam pëcc xoona lool ñi nga xam ne ñooy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nag daat nañuy dalal waa gox yu bees ndax waa gox yu bees PDS ñoom nee nañu jamono ji nag dañuy jàppale yeewu askan wi ngir nag ñu mën a am majorité ci assemblée nationale waaye yeewi ñoom Déthié Fall daan nañu déposé seen i lu toll ci cinquante cinq mille trois cent vingt sept ci ay yoo xam ne daañu ko daal di déposé yéen a gi de la xëy di ñu xibaar mbir mu garaaw a garaaw nee na nag Macky Sall ma ngi liggéey ci loo xamante ni kenn yëgu ko ngir nag jël Aliou Sall yóbbu ko ca assemblée nationale ngir ma wuutu Moustapha Niasse yéen a kaay gi xëy di ñu xibaar naan ñu waa ji bëgg nañ lool Karim Wade daal di dellu siwaat ci réew mi mi dafa mel ne da leen a jaaxal ñi nga xam ne ñoo bokk PDS dëkk Géejawaay ñoom nag nee nañu dinañu amal marche daal ngir nag Karim Wade dellu si waat ci réew mi yéen gii di 24 heures xëy di ñu xibaar naa ñu crise alimentaire bu garaaw a garaaw mooy yoot Sénégal bu ñu si waxul musiba ma bu kumba gu rëy naa am yéen a kaay di Dakar Times xëy di ko dëgg la ay produits ay njëg yoo xam ne yokk na ba maara détaillé te nag mbir a kaay gi di l'Observateur nee na Amadou Sakhir Mbaye ba ci Louga ni ki démb la ñu leen doon atte waaye nag procureur bi nee na nañu leen tëj lu toll ci benn atu kaso waaye nag benn weer la ñuy tëdd yéene kaay gi nee na fukki fan ak benn ci weeru mai la ñuy xam lépp liberté provisoire la seeni avocat doon sàkku procureur da leen koo gi di estat xëy duñu xibaar naan ñu en tout de sala jamono ci ballon d'or bi jogante bi diggante Sadio Mané ak Karim Benzema mbir mi nag tar na lool journal bi di estat nee na Sadio Mané bu dee nag bëgg naa jël ballon d'or bi am na ñaari mbir ñaari mbir yoo xam ne Sadio Mané munu koo ñàkk njëkk a def ba sa njëkk mooy nag championnat bu Angleterre fexe ba Liverpool jël ko waaye tamit Ligue des champions bi nga xam ne ñoom ak waa Real Madrid la ñu koy footballé sa Paris Sadio Mané fexe ba nag Liverpool jël Ligue des champions bi waaye nag ca bisu final ba tamit Sadio Mané wane fa boppam bu baax a baax lii lépp daal bu ko Sadio Mané defee mën naa jël ballon d'or bi ci kanamu Karim Benzema. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may